yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activé cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service di Saint Coran. inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina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 mbokki jullit yi gannaaw gannaaw bu ñu santee yàlla julli sëlmal ci ab yonentam ñu del si di leen dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla te muy sax ci ndigal bàyyi tere gannaaw loolu borom bi subhaanahu wa taala wax nañu ci alquraanul karim na innama amwaalukum wa awlaadukum fitna wallahu indahu ajrun azim borom bi subhaanahu wa taala nee na seen alal yi ak seen doom yi fitna fitna lañ ci yéen maanaam dañ leen di nattu ci seen doom yi di leen nattu ci seen alal yi ba xam liñ leen ci sant da ngeen ko def wala du ngeen ko def ku ko def nag yàlla dencal na la yool bu rëy kon ñu ñëwaat ci tem bi ñu nekkoon gannaaw ba ñu waxtaanee àq ji nga xam ne waajur yi am nañ ko ci doom yi tey ñuy waxtaane àq ji nga xam ne doom yi am nañ ko ci jur yi ndax nag ku ci nekk am ngay àq waaye àq yooyee ay war-war moo janoog moom doom yi am nañuy àq waaye àq yooye mooy warteef yee nga xam ne moom lañ tuddoon ca ajjuma yee di paase moo jàkkaarloog moom waaw bu ko defee itam way jur yi ñoom itam am nañuy àq waaye dafa am ay warteef yu leen war yooyu nag moom lañu fas yéenee waxtaane tey doom nag waxoon nañ ni xéewal la goo xam ne nii sunu boroom moo koy xéewale ku ko neex waaye nag du jaagee ni mooy nattukaay bi baax ak ñàkk baax nekkul ci ay doom nekkul ci alal moo tax bu mu tuddee ay alal ak i doom toujours léeg-léeg nga dégg ko mu teg ci wal baaqiyaatu saalihaat ya ca des nag ca mooy njub jaamu yàlla ragal yàlla loola mooy baaqiyaatu saalihaat loola moom mooy la gën loola la ñuy xamee nit ki baax ca la ñuy natte ak mbaax ak fu nit ki toll ci sunu borom waaye du ci ay doom wala ay alal moo tax doom danañ gis ne même ñi koy ñaan yonent yi bare bari ñaan nañ ko waaye buñ ko ñaanee nag dañuy tënk ñaan gi ci dara waaye duñ ne may ñu ay doom rek benn ñu ne zurriyatan tayyibatan waaye ñaan zurriya rek amul njariñ ñaan am njaboot rek amul njariñ ñaan am njaboot goo xam ne nii gu baax moo am njariñ waaw rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun may ñu njaboot goo xam ne nii boo ñu ko mayee dañuy doon njaboot gu baax boo xam ne nii suñu xol dana ci sedd kooku moo mat ñaan ah kon bu ñu demee ci alxuraan di ja yonent yu bari gis nañ leen ñu ñaan njaboot waaye buñ ko ñaanee itam dañ koo tënk ci mu nekk njaboot gu baax doomu aadama nag yàlla moo ko bindee ne dafa bëgg al imtidaat kenn ku nekk du doomu aadama sax dama ne luy dund lu nekk rek daa bëgg di continuer ak dundam continuer ak dundam nag xam na ni moom ci boppam mënu fee nekk ilal abad waaye bu fi jógee mu bàyyi fi dara loolu yàlla moo ko mooñaale lépp lu mu bind mu am ak roox da koo koo mooñaale ndax doomu aadama li mu am ci ay mébét yépp li mu am ci ay projet yépp xam na ni ak dundam mënu koo ëmb loolaa tax projet yooyu ak mébét yooyu mu bëgg bu fi jógee loo xam ne ni dafa soqi koo ci moom mu man koo wéyale bu ñu dikkee nag ci àq yi nga xam ne doom yi am nañ ko ci way jur yi muy warteef yi nga xam ne war na woy jur yi ci seeni doom àq yooyu day àq yu teel a sosu la laata sax doom di sosu àq yooyu dafa am nit ki fa muy takke soxna la commencé di joxe àq yooyu nga xam moom la war a jox ak njabootam bu ca ay njaboot juddoo moo tax lañ ko jëkka sant mooy buy wut soxna na soxna su baax na tànn soxna su baax ndax doom kat àtteeb gàncax la yor doom teb gàncax la yor gàncax nag ngir mu mën a baax jiwu wa dañ koy ji ci suuf su baax bu saxee nekk gàncax gu baax waaye bu fekkente ne jiwu da nga koo ji ci suuf su baax di ca séentu si suuf su baaxul di ca séentu gàncax gu baax bu boobaakat mën nañu da ngay nax sa bopp waaye doo am gàncax gu baax niki noonoo njaboot boo bëggee am njaboot gu baax tànnal soxna yu baax nga ah, sëy ak ñoom lu ca judd ci njaboot bu boobaa mën naa nekk njaboot gu baax ndax wal baladu tayibu yaxruju nabaatu bi ni rab bi yàlla nee na suuf su baax buy sax lu fay sax gàncax gu fay sax gàncax gu rafet lay doon gàncax gu baax lay doon walladi xabusa laa yaxruju illa nakida suuf su baaxul nag lu fa man di sax itam ak lu mu rafet rafet ci gis mukk fa muy mujj rek du baax gàncaxuk seen rek lay doon yal nañ ci yàlla musal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne tunkaaxul mar'atu li arba'in yonent bi nee na ah, jigéen des na ko denc ngir ñeenti mbir ngir ñeenti mbir ñiy jóg di di denc jigéen ñépp kenn génnu ci ñeenti mbir yi kenn ku nekk nag ak fa ngay xoole am na kenn ku nekk ak fa ngay xoole am na koo xam ne nii ñeenti mbir yi am na ci benn bu ko gën a soxal ñeenti mbir moo tax ñuy denc soxna ñu ne ko lan mu ne bi ci jëkk dees na denc soxna li jamaaliha ngir ab taaram am na ñoo xam ne nii bu ñuy wut soxna ndax rafet na rek la ñuy wax leneen soxalu leen ca taar ba rek moo leen ca soxal wali xasabiha am na ñoo xam ne nii danañ denc soxnaa tam li xasabiha xasab nag buñ ko waxee mooy jaloore ya manoore ya ya nga xam ne danañ ko limal jigéen waaw fa mu bokk kii day ci mi ngi bokk ci ñoo xam ne nii nangam nangam jëf am nañuy manoore ki jaloore wala moom ci boppam sax am na ay manoore ki jaloore yu réeréy ah am na ñooñ bu ñuy takk soxna lool rek la ñuy xaal xool ci ka ñuy takk ndax boroomi manoore la ak boroomi jaloore la walimaalihaa des na takk jigéen yi tam ngir alalam am na ñoo xam ne nii bu ñuy takk jigéen dañ naan ndax am na alal waaw ndax ku man boppam la man de su may takk damaa bëgg a takk ku man boppam ku am alal ñu wali wali diiniha mooy ñeenteel bi des na takk jigéen itam am na koo xam ne nii bu jógee di takk soxna danaa ndax am na diine yoonam nekkul ca taar ba ah yoonam nekkul ca jaloore ya ak manoore ya yoonam nekkul ca euh, alal ja waaye danaan ndax am na diine bu amee diine rek mu dugg kooki nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag nee na la ñeent yooyu boo dee tànn nanga tànn ngir diine rek képp far bax bi zaati fexe ba am borom diine na nga fexe ba am boroom diine nga la waay leneen loo mën a xool itam na nga la ngay gën xool la ngay jëkk xool na nekk diine bu amee diine nag lu ca bo ànd rek baax na waaye bu amul diine ñett yooyu yépp jërul takk soxna waaw kon fii la nit ki commencé di euh, liggéeyal doomam ci tànn ga muy tànn soxna samuy euh, euh, séyal mooy tax doom ya mën a baax bu ñu jógee ci boobu bokk na ca àq yi nga xam doom am na ko ci woy juram mooy mu fexe ba wattul ko ak dundam wattul ko ak dundam waaw garantil ko ak dundam moo tax borom bi subhaanahu wa nee na ci alquraanul karim laa taqtulu awlaadakum min imlaaq nahnu narzuquhum wa iyaakum dellu waxaat ne wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaq nu narzuqukum wa iyaahum ñaari laay yi daf ñuy wone doomu aadama yi léeg-léeg ñu fanq ñu fanqum njaboot ñu fanqum njaboot ngir ñaari mbir ngir ñàkk gu fi nekk goo xam ne ni mi ngi fi wala ñàkk goo xam ne ni dañ koy ragal mu ñëw fi waaw doomu aadama yi danañ fanq li ñuy wax limitation des nessance wala organisation des naissances ñaar la yoo xam ne nii bokkul limitation mooy moom fexe ba dootu am doom organisation mooy fexe ba amiinu doom wi nekk lu ñu organise ñaar yooyu yépp am na ca bu ci nekk lislaam am na ca aw gisiin am na ca aw taxawiin lislaam du nangu mukk yooyu lu dul ci benn sabab rek maanaam na nekk sabab cause ba na nekk cause sanitaire nga xam ne lii day day fekk ne kii bu amatee doom jigéen ji bu amatee doom ak dundam xaj na ci ñu fexe ñu mën a limiter ak amam doom wala bokk ak amam doom ci anam yu bari mën na koo andil ay problème yi santé ñu fexe ba organiser ko muy gën a sore loola lépp lislaam nangu na ko waaye nag bu dee yeneen cause moom man day dama sa ama sama soxna yi damaa xam ne bu ñu amee ay doom bu ëllëgee doom yooyu duma leen mën a yor duma leen mën a dundal wala nangam wala li nga xam ne moom lay eh, ñu ñu baree bari ci nga xam ne monde bi yépp daanaka moom lañ gëm fi mu toll gëm ne monde bi li ci nekk ci ay eh, ressources eh, yoo xam ne ni ñoo war a dundal monde bi mu ñoo moo gën a néew population monde bi maanaam population monde bi li nekk ci monde bi ci ay ressources doyu leen ba tax ñu ne nañu limiter naissance yi wala nañu organiser naissance yi loolu lislaam nanguwu ko loolu lislaam nanguwu ko ndax yàlla moom li mu def ci kaw suuf lu mu fi indi ci ay doomu aadama rek doy na leen lu mu fi indi ci ay doomu aadama rek wa aataakum min kulli ma saaltumuhu lu lu ngeen ko laaj rek jox na leen ko wa aataakum min kulli ma saaltumuhu wa in tauddu nicmatallahi la tuhsuha kon xéewal yi doy na sëkk-sëkk jekk fii naan bu ñu fekkee bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu limité wul naissance yi wala ñu organise ko ay famine dana fi am wala nangam loolu ñàkk gëm yàlla la ñàkk doyloo yàlla la ca wedd itam li yàlla wax la ne wa ata min kulli ma saaltumu moo tax gis nga laay ju jëkk yi bu mu bi mu nee bu leen rey seeni doom bu leen rey seeni doom ngir ngir ñàkk gu fi nekk ñàkk goo xam ne dangeen a nekk ci biir ñàkk gi min imlaaqin la wax bu leen rey seeni doom min imlaaqin ci ñàkk goo xam ne nii daf fee nekk bu mu leen tax a rey seeni doom xoolal ba muy wax lam ca teg dafa ne nax nu nax nu man yàlla narzuquhum doom yooyu ngeen ragal ne bu ñu dikkee du ñu am lu ñu dundee man maa leen di wërsëgal doom yi la jiital fi ndax ñàkk gi dafee nekk wa iyaakum ak yéen itam maa leen di dundal maa leen di wërsëgal ba ñu ragalee ñàkk gi nag nga xam ne ñàkk gi ñëwagul foofa dafa ne nax nu narzuqukum man yàlla maa leen di wërsëgal yéen ñii fi nekk di ragal ak ñàkk maa leen di wërsëgal waaye ñooñee itam bu ñu dikkee maa leen di wërsëgal wa iyaahum kon garanti yu mat sëkk la borom bi subhaanahu wa taala joxe ci wàllu wërsëg bu ñu demee ba tey di lim droit yi nga xam ne doom am na ko ci way juram ñetteel ba mooy at tasmiyatu bismin hasan mooy sa doom nga tudde ko doom joo euh, tur woo xam ne ni tur wu rafet la tur wu rafet sa doom am na ci àq ci yow nga tudde nga tànnal ko tur wu rafet waaye tànnal ko tur woo xam ne nii bu ëllëgee fu ñu ko wax tudde mu mu am ca gàcca loola baaxul boo ko defee yoral nga sa doom àq tànnal ko tur wu rafet tur yi nag bu rafetee rek bu rafetee rek baax na waaye nag am na yu gën a baax maanaa yi nga xam ne uh, al asmaul muabbada lillaahi tur yi nga xam ne dañ koo dañ koy dañ ko dañ dañ naan jaamub yàlla wala jaamub nga teg ci tur sunu boroom loola mooy tur wa gën ci tur yi jaamum nangam jaamum nangam waaye nag jaamum nangam la cay tegu daal na nekk tur sunu borom bu mu nekk weneen tur wudul tur suñu boroom moo tax Abdul Muttalib sax boroom xam-xam yi werante nañ ci ndax manees nit ki mën naa tudde xam ngeen ni maami yonent bi Abdul Muttalib la tuddoon ah. ce yonent bi doon na wax ne ana ibnu abdil muttalib maay doomi abdul muttalib kon mu mel ne lenn ci boroom xam-xam yi dañoo gis ne foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa saxal ne eh, abdul muttalib kon mënees na koo tudde waaye li ëpp ci boroom xam-xam yi ak li gën a wér mooy ne abdul muttalib mëneesu koo tudde yonent bi foofu da doon ixbaar da doon xibaar rek ne ndax Abdul Muttalib nag maamam noonu la tudd bu bëggee wax ne man sama maam mooy moo ma jur mënta ñàkk a wax loolu ixbaar la doon def da doon xibaar waaye nekk loolu nekkul insha insha nag mooy nga jël nit ki tuddee ko Abdul Muttalib loolu dëgganul dëgganul Abdul Kaaba yooyu yëpp amoon na fi Abdul Shams am yooyu yëpp amoon na fi waaye yooyu yëpp dëgganul li dagan daal mooy abdullah abdurahman abdul même abdul jabbar sax abdul shakur abdul nangam loo xam ne turu suñu boroom la yooyu ñooy gën ci tur yi buñ ko weesoo nag ah tur yi yonent yëpp baax nañ muhammad yonent yëpp wépp tur woo xam ne ni ab yonent yor na ko rek mënees na koo tudde nit waaye sax yëmul foofu wépp tur woo xam ne nii malaaka yor na ko mënees na koo tudde nit waaye sax yemul foofu yépp tur woo xam ne nii daal tur wu rafet la mënees na koo tudde nit donte nekkul benn ci yooyu ma tudd waaye bu ca ak rafeta rafeta di amee rek moo xam ci làkk wu nekk nag am na loo xam ne nii buñ ko waxee du rafet am na loo xam ne buñ ko waxee mu rafet bu fekkente ne ci làkk wa buñ ko waxee dana rafet ca nekkul loo xam ne nii ak bokkaale ma nga ca bu boobaa tur woo baax na kon gis ngeen ne yii daanaka ay àq la yoo xam ne nii nit ki da koy joxeel doomam laata muy gane àdduna wala bi muy bi mu ganee àdduna kepp la ko la ko defal kon buñ jógee ci boobu wayjur dana ko war mu sàmm doomam taxawu ko ci lépp ci waxtu yi mu nekkee ndaw juddu na ba noppi juddu na ba noppi bu juddee ba noppi nag war na koo sàmm sàmm ko ci wàllu léppam daal moo xam wér gi yaram la moo xam dundal ko la ak lépp loo xam ne nii dana ko aar loola war war na ko ba keroog muy majeur moo tax gis nañ ci alquranul karim wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutimma radaa wa ala almawludi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bil maaruf gis nga xale bi bu juddoo nàmpal moo ca jëkk ñu nàmpal ko war nañ koo nàmpal cay nañ ko nàmpale ci soowum ndey soowum nit moo gën wal waalidaatu yurdi'na awlaadahunna ca nañ leen nàmpal itam nàmpal goo xam ne nii dana mat gën gën ba gën a mat nag mooy ñaari at ah su ko manqué tam wàññiwul dara waaye nañ ko nàmpal ca nàmpal googee tam nag ka nga xam ne mooy baay moom la war moom la war wa alal mawlid mawludi lahu na moo tax bu ñu demoon bay nàmpalloo ji feneen itam ñooñee ñuy nàmpalloo wala sax seen yaay yi bu ñuy nàmpal dund bi mi ngi war ñi nga xam ne ñoo ko jur muy góor ñi ñooñu la war ñoo leen wara a euh, euh, dundal wodd leen bil maaruuf nag ca la nga xam ne moom lañu man bokk na ci àq yi ba tey xitaanuhu waaw nit ki bu juddoo sa doom bu juddoo àq la ci ju mu am ci yow mooy nga duggal ko néegu góor nga duggal ko néegu góor waaw loolu lu war la kañ nga koy def nag ah yahud yi de ñoom dañ daa def bu bu ñëwee rek ñu daat koy def ah xam nañ ne nag mu muxaalafatul yahud yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy sant toujours ñu wuuteeg yahud yi ca lañuy doon def bu fekkente ne am na lu ñuy def ca sunu diine digal ñu ko nu itam bu boobaa bu ñu bu ñu koy def la gën mooy ñu fexe ba wuute ca ak ñoom nañ koy defee. moo tax boo négee ba am ay bis waa lu ca tegu rekk mën nga koo def ay bis ga wala la ca tegu mën nga koo def bu njëkk nag daanañ ko bàyyi ba mu nekk mag waaye looloo tam wax dëgg yàlla ku nekk xam na ni gënul ndax ci waxtu wi mu nekk ndaw du yëngatu du def dara nga dugal ko néegu góor foofu ci lay gën a gaaw a wére ci lay gën a woyafe ci moom nga néeg ba mu nekk mag bokk na ci àq yi nga ko yoral sa doom ji mooy nanga ko yar ci jaamu yàlla nanga ko yar ci jaamu yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne muru awlaadakum bi salaati li sab'in sa doom ji bu amee juróom-ñaari at rek nanga nga commencé di ko digal julli na nga commencé di ko digal julli doonte foofu xam nga ni julli gi euh, nekkul julli goo xam ne nii gu ko war la nekkul itam julli goo xam ne nii xëy na mën naa baax waaye danga da ko ko koo bëgg a tàmmal da ko ko koo bëgg a tàmmal ba bi keroog bu nekkee mu mu kàllaf mu man du nekk lu diis ci moom muru awlaadakum bi salaati li sab'i bu ñu amee juróom-ñaari li sab'in ay inda sab'in laam gi laamu inda loolu mooy laamu inda ay inda sab'i bu ñu amee juróom at wadribuhum li ashr bu ñu amee fukki at nag bu boobaa da leen di war bu ngeen leen santee julli ci defuñu ko nag ñu caw leen ñu caw leen moo tax Cheikh Ahmad Sakhir Lo daana wax ne ah dóor de bëgguma ko waaye day bu dee ci julli de moom képp koo xam ne nii dañ laa sant nga ne julli ji nga bañ julli ji boo dikkee ne dañ maa caw ngir ne damaa julli boo dikkee danaan ah ah julli ji moom julli moom dañ la cee war a caw waaw boo ko nanguwul a def dañ la ci taw wadribuhum alayha li ashr bokk na ca àq ya ñu tàggatle leen fil tàggatle leen ci fil madaaja ca tëru tëddukaay ya nañ leen tàggatle le loolu muy li ñuy wax éducation bu ñu doon wax éducation sexuelle bi nga xam ne moom lañ bëgg a dugal ci école yi di leen ko xamal nan lañuy ñuy séyeeg nañ nañ nangam fii moom xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu amee fukki at bu ci kenn bokkateeg moroomam malaan am sax ñu ne bu ñu bokk lal la ci jublu ndax madd jaa mooy fa ñuy tëdd waaye am ñu ne bu fekkente ne manu na kenn ku nekk na yor lalu boppam bu mënuwul bu ñu demee bay bokk lal bu ci ñoom ñaar bu ñu rafle kenn ku nekk na soli yére waaye bu ñëwee malaan itam bu dee menn malaan eh, kenn ku nekk na am malaanum boppam waaye bu ñu bokk benn malaan loolu lépp ngir wattandiku yoo xam ne nii wërta nekk nga xam ne ndey même ndeyam ak baayam nag même ndeyam ak baayam nit ki eh, xale bu jigéen bi bu mu wala bu góor bi bu mu tëddateeg ndeyam bu amee fukki at tar tere nañ ko loolu bu mu tëdd moom xale bu jigéen bi bu mu tëdd baayam bu amee fukki at yooyu yépp gis nga li ñu lislaam di jàngal set gi ñuy jàngal ak setadi gi nga xam ne nag ñii moom moom lañ ñu bëgg a jàngal ñu jàngal leen ko ci école yi dugal ko ci ñu xam ñu koy jëfee yàlla na nu yàlla defar ak dégg ak tab aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala mbokki jullit yi ñu dem ci juróom-ñetteel bi mooy éduquer sa doom jàngal ko waaye jàngal ko nag njàng moo xam ne nii mu tegu ci naka lislaam bëgge la ca mooy lu muy jàng lu nekk lañ ja lañ santoon yonent ba mooy iqra jàngal waaye bismi rabbika ci sa turu borom bu ko defee nag nga jàng lu la neex looloo tax complément ba la nga xam ne mooy maf'ulun bihi ba ñëw fa iqra jàngal waaye looy jàng lu nekk lan ngay jàng waxu ko bismi rabbika na nga ko jànge ci sa turu borom kon mën nañoo jàng lépp lépp lépp mën nañ koo jàng waaye luñ ko lu ñuy jàng rek nañ ko jàng ci turu borom bi subhanahu wa taala loolu duma ci sori ndax mel na ni am na lu luñ ci dawaloon ci kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi loola doy na sëkk juróom-ñeenteel bi say doom itam am nañ àq ci nag nga bëgg leen yërëm leen waaw dañu jële ci sayidatuna Aïcha mu ne benn euh, kaw-kaw dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ne ko ah yéen da di fóon seeni doom da ngeen di fóon seeni doom nun de duñ ko def jël sa doom di ko fóon nun de duñ ko def fa qaala lahu nabi sallallahu alayhi wa sallam awa amliku Ah, awa amliku laka in nasaa allahu min qalbika rahma waaw yéen du ngeen ko def ndax amaana yàlla dafa nocc ci seeni xol ay yërmaande looloo tax du ngeen ko def waaye nun dañ koy def ndax nun xam nañ ni irhamu man fi samaa man fi lard yarhamkum man fi samaa waaw awar rahimuuna yarhamuhumullah kuy yërëme rek yàlla dana la yërëm looloo tax dañuy yërëm suñu doom dañ leen di fóon loolu ak mat la waaye du ak manque fukkeel ba mooy nit ki na maandu ci ay doomam àq la yoo xam ne ni say doom am nañ ko ci yow mooy nga maandu ci seen diggante waaye bul jël kenn di ko gënal la ci keneen Nu'man ibn Bashir jële nañ ci moom ne muy Bashir daf koo indi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yanu ko indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax yonent bi ne ko maa ngi lay seedeloo ne sama doom ji muy Noomaan may naa ko nangam ak nangam yonent bi ne ko ak kulla awlaadika naxalta ndax lool yi nga ko may may nga ko sa mbooleem doom yi mu ne ko déedéet mu ne ko seetal ku la seede man duma seede loolu waaye seet ku la seede demal seeti keneen waaye man ak maandu laa xam ci diggante ay doom loo may ke benn doom na ko may ñëpp waaye may kii nii bañ koo may ña ca des loolu du ak maandu ne ko alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawaa ndax du la du la neex ndax nekkul lu la neex Ah? ni nga bëggee ni nga bëggee bu ñuy baax ci yow ñoom ñépp ñu baax ci yow kenn ku nekk nga bëgg mu gën a baax ci yow loolu neex la lool ndegam loolu nga bëgg kon nag booy baax ci ñoom yow itam na nga baax ci ñoom ñoom ñépp ndax kenn ku nekk bëgg nga mu baax ci yow yow itam booy baax na nga baax ci ñépp bu loolu mënta am nag kon bu ko def kon lii lenn la ci rek euh, àq yi nga xam ne doom yi am nañ ko ci way jur yi rawaate na nag doom yu jigéen yi jumu doom yu jigéen yi seen àq dafa yokk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaax nanu ci barab yu baree bari ne ku am ñaari doom ku am ñaari doom yu jigéen wala ñett ah, yar leen yar ba nga leen war a yar ah loola day nekk kiiraay ci sawara loola day nekk sababu dugg àjjana ku am ñaari mbokk yu jigéen walla benn mbokk euh, euh, ñett am na sax ñu ne loolu kat ka doon wax rek waaye bu ko ne woon benn tam bu ne ko benn boo ca boo ca boo ko taxawee na nga ko war a taxawee yar ko jaarale ko fa nga ko war a jaarale ba mu sëyi wala mu faatu walla nga faatu bu boobaa loole dana nekk kiiraay ci yow ci sawara dana nekk sabab bu dugg àjjana loolu lépp day wane ne doom yu jigéen yi ñoom seen àq dafa gën a yokku ndax jigéen moo gën a nekk moo gën a feebal ci góor kon nañu taxawee doom yu jigéen yi yar leen yarub diine bu baax a baax a baax fexe ba toppatoo leen bañ sëyi looloo tam lu am solo la yal na nu yàlla defal ak dégg akub topp yal na nu yàlla sàmm sàmm sunuy njaboot yal na nu yàlla boole ca ña nga xam ne dañuy baax ci seeni doom yal nañu yàlla boole ci ña nga xam ne da leen di may ay njaboot yu baax njaboot yoo xam ne ni dañuy baax ci seeni way jur yal nañu yàlla defal euh, xol bu sedd bët bu sedd ci sunu njaboot rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama qumu ila salatikum yarhamkumullah